asalaamaaleykum mbokk yi di delloo njukkal sëriñ Mouhamed Mourtada maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci màggal gi nu génn di ñaan yàlla nangul nu ko te defal nu ci yiwu ci boroom dige may nu itam nu fekkwaat ko ay yoon yoon yoon yoon ci ak wér akuk tay nak lu mat juróom-benni laaj lañu fassiyene fas tontu bi ci njëkk day wax ne ku bidënt ba bi mi yeewu jënt bi fenk na kon julliwul fajar julliwul suba fajar liñ ciy jublu moy waxtu waxtu fajar wi julli gi ñi julli ta du farata suba moy gi ci farata amna ñaar rak yu ñi jital yudul farata mom la ñen ñi tudde fajar yaay farata nak la ñeen ñi suba kon bu ñu suba wax fajar loolu lañ ci jublu mu né bu jënt bi fënké muy doore a mo xam lu lu taxoon nan lay ya ñaari julli yi li njëkk dé mo di né julli gi farata lañ wara fay mo fay ko dafa war gi dul farata nag fay ko warut warut julli gudul farata fay ko du nekk lu war waaye borom xam-xam ne danañ di wax ne moom julli fajar moom manees na koo fay kon ku ku mu soob ku mu soob mën na koo fay ba ba euh, tusbaar di jot wala jege ba tusbaar di jege mën na koo fay bu dee ji farata nag moom dañ koy fay naka jekk ak euh, lu mu yàgg kon bu fekkee bëgg naa fay yaar yëpp Euh, li gën mooy mu jiital farata ji farata ji jiital farata ji bu julli farata ba noppi nag teg ca la nga xam ne du farata te bu ko neexoon bañ koo fay muy fajar ja kon noonu lay demee ak lu man di waral nag biddanti ga biddanti nag maanaam nelaw moom koo xam ne nelaw moo tee mu julli ci waxtoom yonent bi dafa wax ne moom Euh, bu yeewoo na ko fay loola rek mooy la ko war bu dee koo xam ne fàttee tax itam saa bu ko fàttalikoo rek na ko fay loola rek a koy war ki sàggan nag waxtu wi jot mu mën a julli ñàkk julli nag ba waxtu wa génn kooku moom da cee boole bàkkaar da cee am bàkkaar te dana ko fay itam kii nga xam da doon nelaw nag kon moom da koy fay rek day fay farata ji bu ko soobee itam mu fay eh, li dul farata te fajar gi waaye nag na jiital farata gi door eh, caa teg li nga xam du farata loolu mooy laaj bu njëkk bi laaju ñaareel bi day laaj eh, ki màggal ba noppi yan jeexiital màggal gi war a am ci moom wala lan la war a jële ci màggal gi loolu de mën naa bari waaye mënees na cee tudd yenn rek xëy na bu dul jëmi màggal gi itam doon li li waral màggal gi li waral màggal gi moom mooy may yi yàlla may sëriñ bi te may yooyu itam juddoo ci tukkib géej gi kon bu nu neexoon nu wax kon ci liñ mën a jàngee ci tukkib géej gi ku màggal si xelam du ñàkk mu dem ca loola boo ca demee nag am na lum ci war a mën a eh, jële lu ci mën a war a mën a jànge am na yetti mbir yuñ ci mën a tënke mbir mu njëkkim moom mooy amuk dogu akuk dëgër ci dëgg sëñ bi fi njaar moom fépp taxul mu mas a dellu ginnaaw lu mu tut tuut tuut tuut ci lim nekkoon mas naa wax nit sax ne ko day rusuma day ñu topp samay tànk fi mu jaaroon ak tubaab bi rusuma ñu topp samay tànk fu ma jaaroon ñu jaaraat fa ku ko defee du du gis lenn loo xam ne ak ñàkk jom la wala ak def lu ma war def la loolu kon waras na ko mën a jànge ci yoonu géej gi muy sax ak dëgër ci ngëm-ngëm bi nga xam ne nit ki gëm na ko e, leneen luñ ci mën a jànge bokk na ci e, doon nituk jàmm lu mën di xew looy mën di lijjanti nga lijjantee ko ci jàmm buñ ko lijjantee fitna bañ koo lijjantee doole bañ koo lijjantee ngànnaay loolu tam mënees na ko cee ndax sëñ bi xeetu sañaxal gone def nañ ko ko bundu xatal bu ne wala gune def nañ ko ko waaye taxut mu mu mu mu mu weesu jëflanteeg ñoom ci jàmm rek ba yàlla dimbole ko ba lim bëggoon moom am lim bëggoon ñoom amut te booba it wax na ne Euh, bu jekk woon na leen daal jekk woon na leen ba ko sooboon lu mu bëggoon boog yàlla dogal ko ci ñoom waaye da leen a jéggal ba mu àggee foofu da leen a jéggal bañ a ak ñoom loolu jàmm euh, di nekk nitu jàmm kon loolu lijjanti lu ne nga lijjanti ko ci jàmm loolu mënees na ko cee jëli mënees ko jànge ci yoonu géej gi mënees na cee jëli mënees na cee jànge itam nag yittewoo yittewoo gi sëñ bi yittewoo woon aw xeetam muy ñi mu bokk fi mu bokk mënees naa wax rek waa réewam ndax li sabab tukki bi sabab yi ci biir wax na ci ne xettali aw xeetam ak ràmmu leen taxawu leen bokk na ci li waral tukki bi sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon mu mu doon kuy ramm aw xeetam ram gi nag fii lay tàmbulee te teg teggum leen di teg ci yoon yoon woo xam ne ku ca nangoo tegu dana mucc bu soobee yàlla loolu foofu la ramm gi tàmbulee muy xettali gi waaye bu ëllëgee itam nag kim teg ci yoon mu tegu ca dana sañ a yaakaar bu laajee rammu ëllëg mu ramm ko bu fekkee eh, aajo woon na rammu mu ramm ko waaye fii lay tàmbalee eh, loolu kon mënees na ko tënk ci liñ mën a jële ki eh, li waral màggal gi te mooy tukkib géej gi tukki boobu jur may yooyi may yooyee jur màggal gi ñetteelu laaj bi kii dafa wax ne am ñaari soxna mu ne dañuy wax ne bu aayee ci kenn ki sañuta dugg ci nekk ca des mais ndax aada wala diine la aada de bari na ci xam naa ne buñ ko waxee noonu buñ ko waxee noonu aada bari na ci waaye euh, sañ naa dugg ci nekk nekk nekk ku ko neex ci ay soxnaam ci kër gi fu ko fi soob sañ na fa dugg bu fa amee yitte bu fa amee yitte li nga xam ne rek moom la sañut mooy li nga xam ne euh, moom lay séq ak ki aaye li mu war a séq ak ki aaye moom waru koo séq ak keneen ki aaye wut waaye nag sëñ naa dugg néegam am fa yitte euh, dugg fa wax ak moom wala mu am lu mu fa jël wala lu mu fay def sañ na ko dara nekku ci ñeenteel laaj bi mu a jigéen joo xam day jël alali borom këram tadu ci am ndigal ndax xëy na jàpp ne borom këram borom kër daal alalam moo ko alali soxna si euh, jenn alal la ci daal déedéet nag demut noonu nag demut noonu ku nekk ak alalam ku nekk ak alalam ku nekk la keneen di sañ a jëfandikoo ca alalam mooy lam ko ca may lam ànd ci mu jëfandikoo ko rek kon borom kër kër lim sañ jëfandikoo ci alali soxnaam mooy lu soxna sa ànd ca mu jëfandikoo ko. soxna itam lam sañ jëfandikoo ci alal alali borom këram mooy la borom kër ba ànd ci mu jëfandikoo ko fenn rek lañ ko maye mu jëfandikoo lu borom kër ba àndut mooy bu dee borom kër bi dafa gàttañ lu ci li ko war ci moom ak ci doom doom yiñ séq li ko war ci ñoom bu fekkee da ca gàttañ lu te man ko loolu boobaa am na sañ-sañu moom bu mënee jot ci alali borom këram mu jël ci lu tolloog lam la ko war ci ñoom rek matalu ko waaye nag lu génn loola suñu koo jëfandikoo loolu am nañ ci kes cëslaa ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, soxna suñu woon wax ko yonent bi ne ko diw daal sama borom kër la waaye dafa nay ba man ak samay samay doom lu nu jox lu doy yonent bi ne ko mën ngaa jël ci alalam lu leen doy jëm say doom waaye nag foofu lay yem juróomeel laaj bi dana ba tey ku am ñaari soxna euh, waaye moom day liggéey guddi ndax kon ay yi bëccëg lay doon bëccëg rek lay mën a doon ginnaaw dafa nekk guddi <laughs> lay mën a doon kon bëccëg rek lay mën a doon euh, kon bëccëg rek la ay yi ma nekk ginnaaw dafa nekk guddi bu fi day nekk guddi nag lu mel ne foog fooguma dana liggéey juróom-ñaari yëpp weer wépp juróom-ñaari fan yëpp. bu fekkee dana am fan ñu ci du liggéey lu mat ñaari fan xëy na wala benn pan sax kon bëccëg bi na doon ay yi waaye guddi yi itam na leen ko séddale ba tey ay bis gi kon bu dee ñaar la ay bis gi guddi gi mu nekk ak kii ay bis gi ci topp guddi gi mu nekk ak kee euh, juróom-benn laaj bi te moo mujj mu ne day dafa seetlu ne bu ñuy denc euh, nit ci armeel yi buñ demee ba. ba ba suul ko ba noppi dañ naan nañ toog bu ñuy ñaan wala bu ñuy joxe ñaan am ñuy toog am ñuy taxaw mu ne lu ci gën toog ak taxaw gi yëpp a yem nag yëpp a yem yëpp a nit ñee ko aadawoo nit ñi aadawoo di toog waaye du caagoon dañoo war a toog bu ñëpp toogee nag ku mën a toog noonu la toog na ñëpp ndax jërut di nekk ci nit ba noppi di wuuteeg ñoom jëru ko waaye nag eh, boo amee ngàntul toog it mu taxaw. dara ne ñaar yëpp a yem daal amu ci lu ñuy lu ci gën toog ak taxaw yëpp a yem euh, bu ñuy ñaanal ki fi jóge loolu foog naa mooy laaj fi dikkoon ñoo sant ñëpp di jéggulu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.